yu ñu safoo di seetaan dal leen jàmm seen plateau Dental TV ñu leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay seen plateau spécial mu ngi dalal ki nga xamante ne mooy Pape Abdoulaye Touré nekk coordonnateur bu mouvement Sénégal notre priorité Pape Abdoulaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. di la bàyyi nga présenté ak internet maa ngi lay ñëpp di nuyu seen seen YouTube bi di Dental TV. Uh-huh. donc di nuyu ñu leen di à travers votre chaîne YouTube. Uh-huh. voilà di rafetlu tamit invitation Mm-hmm. Par Abdoulaye yow étudiant en sciences politiques et juridiques première année. Mm-hmm. waaw mm-hmm. étudiant euh, à l'université Cheikh Diop de Dakar. dans dans la faculté des sciences juridiques et politiques. nekk tamit coordonnateur mouvement waaw le coordonnateur national euh, organisation citoyenne bi ñuy Sénégal notre priorité. Un mouvement politique ou apolitique Mouvement politique ou Les deux à la fois. Hum. C'est un mouvement politique, mais aussi d'autre part, c'est un mouvement apolitique. Hum. C'est un mouvement, mouvement, mouvement politique dans la mesure où la politique garde sa vocation première. Parce que la politique, hum. c'est l'art de bien gérer la cité. C'est la définition. Euh, parfaite de la politique. Mm-hmm. mais à politique su sénégalais yi ni ñu xamee politique. ci mm-hmm. beneen wàll wi. moy mm-hmm. comme ñuy défendre leader politique wala ñuy défendre parti politique. wala ñom ay intérêt ci benn mouvement comme mouvement politique yi ñuy dégg ñu moom bokku ñu ñu nous sommes à politique. baax kon bootu woo leen ci gannaaw kenn. bootuwuñu ci benn ginnaw parti politique ambition. Beaucoup ci suñu ambition pour bootu ci parti politique bokku ci suñu ambition soutenir. Euh, leader politique parce que sax réglement intérieur bi statut bi daf ko daf koo dàq. voilà donc euh, lijjanti wuñu membres yi fan lañu bokk wala fu ñu bokkul donc l' appartenance politique des membres qui composent ce mouvement dañ ko ignorer ñun lu ñu ñor mooy euh, ndax nit ki d' accord na ak ñun ci combat yi ñuy mëne mhm. pour l' intérêt général du peuple sénégal bi nekk si premier mouvement mouvement bi tudd xëyu la tudd Sénégal notre pays man sensation nga am ci biir réew lu la ci naqare loolu la ci neex ba nga war a mën a créer mouvement waaw xam nga ñun nag ay ndaw lañu parce que soo xoolee mouvement bi ñu ko composé ñu ci bëri ay jeunes lañu amul plus de 35 ans ci biir mouvement mhm. donc comme ni nga ko waxee sànq tour bi commencé wul fii. avant lii collectif la woon collectif des non inscrits et des non récupérés maanaam période élection yi ñu génn dañoo dafa amoon ay jafe-jafe yoo xamante ne Sénégalais yi ko doon jànkonteel. ci mhm. seen wàllum carte d'identité. mu nekk ñu résumé ko ci trois problèmes. Mhm. bu ci njëkk mooy Sénégalais yi déposé woon depuis 2016 2017. Mhm. ba 2018 parce que 2018 lañu tëj fichier fichier électoral bi. mais ba élection yi di jub si. à un mois des élections mënuñu woon jot seen carte. da ngeen di gis ñuy dem ci commissariat yi ñu ne leen dem leen ci mairie yi seen gox ñu dem ci mairie yi ñu ne leen dem leen ci préfecture bi. suñ demee ci préfecture bi préfecture bi seen jëm boobu ñoo leen di renvoyé fi nga xamante ne mooy DAF ñu koy wax direction de l' automatisation des fichiers mm. mujj gi dem ba sonal sénégalais yu ci bëri ñu mujjee faf toog seen i kër ne ñii dañuy fontoo loolu bokkoon ci problème yi beneen bi mooy sénégalais yi nga xamante ni am nañu carte électeur am référence yi ci war mais seen tur nekk ci fichier électoral bi loolu tamit nekkoon benn jafe-jafe mooy waral jour élection soo demee rang ba yegg ñu ne sa tur nekkul ci fichier électoral bi te am na ñu bëri ñu ma ci interpellé ci biir euh, durant les élections waaw beneen bu may tëjee mooy sénégalais yi nga xamante ni bokk nañu ci rang bu métti bi daan nañu yeewu trois heures quatre du matin di dem ci commission yi di dem ci préfecture yi ci mairie yi pour bind seen tur ci fichier électoral bi te man exemple laa ci mais seen carte bu mu génnee personne non inscrite sur le fichier électoral ci lu tegul fenn parce que sur demee ci constitution sénégalaise le vote est un droit constitutionnel et fondamental même président de la république mënu mm-hmm. koo xañ sa citoyen sénégalais parce que moom citoyen la ñun ñuy citoyen mm-hmm. mais dañoo remarqué ne am na ay sénégalais privés, privé seen droit de vote te ñu nekk ay jeunes nekk ay mag nekk ay milliers et des milliers de sénégalais yoo xamante ne voté wuñu élection yi ñu jóge te soo xoolee constitution bi am nañ droit de vote am nañ âge mot euh, euh, âge bu leen permettre pour ñu voté muy 18 ans jaar nañ fu ñu war a jaar yëpp mais dañ leen privé seen droit de vote loolu moo waraloon ñu créé collectif des non inscrits. am ngeen ci satisfaction ou amoo satisfaction. amuñu am nañ ci satisfaction mais amuñu ci satisfaction bu ñu ci am suñu sañoo am ci lu ko ëpp satisfaction bu ñu ci am lenn kese la. mooy man mii di wax ak yow à l'époque dem naa ba gisante directeur daaf toog ak moom waxtaan ak moom mais luñ jotoon wax yëpp daanaka rek wu ci lu bëri demoon nañ tamit euh, ba man tamit may dem daaf ñu may jox ay carte d'identité ma koy yóbbul seeni i borom donc ñooñu noonu ak milliers de sénégalais yi nga xamante ne peut-être à travers ce euh, collectif permettre nañu. Euh, ñu mun a voter loolu mooy satisfaction bu ñu ci am certes que am nañ ci coow non am nañ ci quelques intimidations yu ñu ci jotoon dund ak yenn yu bëri yoo xamante ne mënuñu ko expliquer. intimidation comme par exemple. bon parce que man mii ñun ñii di wax suñuy membre amoon na euh, à l'époque demoon nañ ci ba benn moment am na ñu ci doon woo mën naa citer son maman Ndiaye ci ñun la bokk Anne Marie Ndiaye mais dañuy si dañ koy woo téléphone parce que turam dañ ko dañoo bind numéro yóbbu ko daf mais suñ ko woowee dañ naan leen ndax xam ngeen li leen mën a fekk ci lii. man mii di wax bon intimidation menace parce que man mii di wax ak yow toog naa université di def cours nit wooma nga xamante direction des élections la nekk yow la ko Abdoulaye Touré ma ne ko lu ma njëkk wax mooy est-ce que xam nga li la mën a fekk ci combat bi ngay mën. et pourtant c'est un combat loyal hein, de dara lu grave. mais nous sommes dans un pays nag boo xamante ni jot na tamit ñu jubbantiku parce que li fi yàqu dafa bëri moo waral loolu moo ñu poussé tey ñu créé collectif euh, mouvement bi tuddee ko Sénégal notre priorité comme son nom son nom l'indique. waaw te priorité bi bëri na comme ni nga ko mën a énumérer yéen a ngi ne vingt points. Mm-hmm. waaw ñu ngi ci énuméré nañ 20 points mais laata 20 points bi sax am na yu bëri ñu fi jotoon def maanaam soo demee tey xool ci coowal petro bi bu coow li bëree. Sénégalais yi ku nekk naan Aliou Sall suñu 400000. Mm-hmm. te ñun dañoo wax jàpp ni bëri na ay jeunes yi wax loolu soo leen laajoon 400000 yi fu mu jógee duñ la ko wax. comprendre ñu la kon. voilà comprendre luñ exactement lan moo xew ci biir dossier boobu. Mm-hmm. ñun ak ñu ñu àndal ñu daal di tëju daal di produire un document explicatif dama koo fàtte sax fu ma jël mais sinon ma jox la ko mais yor nañu sous forme de PDF. Mm-hmm. ñu daal di tëju expliquer Sénégalais yi maanaam nit yi nga xamante ne war nañ leen les personnes à retenir dans cette affaire muy le président de la République son classe monsieur Macky Sall su dul woon moom tey du tollu fi mom la laa jox joxoñ baaraam tuuti. mais mom moy mom moy le responsable. mën nañu ko waxee non parce que décret d'approbation yi su amul woon tey jii coow du yegg ci fi mu yegg si. certes que euh, Franck Timis DG wu société bi ñu octroyé les deux puits de pétrole. Saint-Louis offshore profond ak Cayar offshore profond. certes que mom jotoon na ay contrat mhm. ci gouvernance Abdoulaye Wade. Mhm. mais

jaarul yoon ñu ci ubbi dossier avant euh, nu mu tuddati e, corps de contrôle de l'état inspection générale de l'état mhm. di génnee di publier rapport bi le 10 octobre 2012 président de la république profité na ba signer contrat yi loolu incohérence la moo waral ñun tënk yooyu yëpp tënk nañ ko dugal ci biir document boobu moment bi nga xamante ne plateforme bu ñu bokk muy aar la ñu bokk. di organiser ay manifestations ñun dañ ci doon projeté pour di distribuer suñuy documents di jàllale suñuy euh, document PDF mm-hmm. ci via WhatsApp bi ba bëri na ay sénégalais yoo xamante ne tey document boobu permettre na leen ñu comprendre lu bëree bëree bëri ci biir dossier boobu. tout à lu lekk état làkk ci leeral leer. leeral nañ ko ba mu leer donc loolu moom te information yi jëlee wuñ ko fenn fudul ci seen ñu mel ni yéen di dem di wuti information di ko jagleel Sénégalais yi am ay Sénégalais yoo xamante ne nekk nañ dans le fin fond du Sénégal amuñu connexion amuñu journal amuñu dara. Mhm. ñun dañuy bind document bi yab daal di leen koy jébbal. mun naa citer ay tur ay Pape Alé Niang na ay chroniques yu ñu ci def ay Baba Aïdara bëri na ay chroniques yu ñu ci def. comme politique yi am na ñoo xamante ne tamit wax nañ ci ku ci mel ni Ousmane Sonko bind na ci téere te boobu léegi kenn demande euh, kenn amul kenn ku ci démentir virgule.

mosuñu une organisation internationale ou nationale. Nous, ci des ñun ñu dem sol suñu dem les agents de l'ARM. ARM signifie agent de régulation des marchés ah, avant euh, euh, tabaski nous waxtaan ak ñoom ne leen lii parce que nous sommes économistes, mais nous sommes économistes. pour qu'il y ait euh, inflation il faut que la demande soit supérieure à l'offre mm-hmm. alors que ñoom information nous ñu jox soo consommation bu moins def mois bi ëpp na lu ñuy def ci benn fan muy tabaski mhm. te lu ñu yoroon ci stock mën na couvrir mois bi waxuma laa tabaski bi mhm. mais teewul euh, suñu commerçant yi ñu ngi doon yokk

moo war waral ñu taxaw dénoncé ko euh, alerte aussi population bi ne lii ñu leen koy jaayee teguwul ci dëgg teguwul ci yoon. nga obtenu gain de

mais nous, en tant que citoyen yan acte lañ mën a poser pour accompagner IGE ci seen politique boobu ñu nekk di def xanaa da ngay woo ndaw ñi nga xamante ne ci biir Sénégal pour ñu taxaw ndakkal loolu waaw bien sûr parce que ñun à l'époque avant tabaski bi dem nañ gisante ak le coordonnateur de l'IGE UCG unité de coordination et de la gestion des déchets solides mhm. bu ñu gisante ak ñoom ñun dañu ànd ak ñoom ci seen politique de nettoyage yu ñu doon def ci mbedd Dakar bi mhm. au lendemain de la fête vous imaginez lendemain de la fête ku ci nekk yaa ngi toog sa kër du tabaski di continuer fête mais ñun sur le terrain mhm. dem ànd ak aux alentours de de Léopold Sédar Senghor dem aux alentours du marché HLM nettoyer foofu mais ci lancer euh, un message de sensibilisation et de conscientisation nous leen réew nous ñun ñoo ko mën a mënuñu koo defaral ko ci nous mhm. ko ci mhm. irresponsabilité mënu ci wax irresponsable nous? alors que c'est la réalité. kon def ngeen jéego yu am solo topp seen royuwaay parce que bëri na mouvement yi nga xamante ne dañ koy boo xoolee gain de cause la wala fi ñuy amee fu ñuy fu ñu lu ñu mën a lombat ci ñeen ñi. Mm-hmm. am na solo jéego boobu ngeen di def. Mm-hmm. fan ngeen jëlee seen suuf suñu financement nag lu ñuy financé bi leneen lu suñu wàllum bopp. Mm-hmm. parce que comme ko waxee sànq ñun dañ bàyyi xel te loolu moo ñu motivé bu ñu fépp na ñun dañuy créer suñu mouvement boo xamante ne ñun ñoo koy composé. parce que ñun ay jeunes lañ te lu ñu metti jeunesse bi ba tax ñu banque seen i yoxo ne mouvement yi tuñu benn mouvement ñun looloo ñu metti bu ñu engagé wu ci combat bi. d'accord mouvement yi fi bëri jaar nañ fi ay milliers de mouvement mais da ngay dañuy dawal un an six mois nga dégg corrompre nañ ñu nekk ca kaw jox leen un million deux millions kenn déggatu la. yaa ko wax fii ci tentative. maa ko wax fii te loo xamante ni dañ koo gëm quoi parce que ñun lu ñuy def dañ ci ànd conviction ak détermination. Et loolu dafa de engagement détermination conviction parce que ñun conviction du fait un ci mouvement y a un projet qui bëgg Sénégal. bëgg faire liggéey. projet parce que nous sommes di corruption nga nekk pour jël mesures ak ah. donc ñun tamit ngi ci euh, lancé le ba sénégalais l'électeur sensibiliser ko ne ko sa carte bii moo gën a cher budget national. Mm-hmm. parce que sa carte bii nii nga yor koo koy sànnil war nga koo teg ci conviction war nga koo teg ci maanaam programme. mais pan kanta diw mi ñoo bokk koñ diw mi ñoo bokk gox maanaam ñoo bokk ceet wala Ziguinchor wala diw mi ñoo bokk Fatick wala diw mi xalpulaar la wala diw mi murid la wala tijaan la programme la programme mais programme lañ comprendre nañ système bi lu muy demee Sénégal bi day ne programme commencé ci nii boo leen demee ci toog ci nguur gi defee ne loolu moom nis nañ ko suñu coutume la moo waral moo waral ñun indi maanaam woowuñu Sénégalais à ce que ñoom ñu poussé ñu dem toog ci nguur gi. ah lu ngeen bëgg a moment de instance de yi ngeen fekkee ko. waaw mais amul poste ak nombre tànk mun ko fekkee. waaw loolu loolu lu am la. Hmm. mais loolu ambition la ak ñenn ñi nga xamante ne peut-être ñu ngi ci ñun ñeneen ñu amuñu ambition yooyu. ñun ñaan nañ yàlla nekk ci dans le secteur privé liggéey génne suñu vie dignement et loyalement. parle-moi des dix points. servir suñu dëkk aussi. waaw bon dix points yi comme ni ñu ko énuméré sànq vingt points lañ tënk. Uh-huh. parce que ñun bëgg ñoo toog six mois yoo xamante ne wala trois mois yoo xamante ne sénégalais du ñu dégg. loolu suñ ko defee rek on a failli à notre mission. dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne maire bu màgget la.

ñu war a waxee wax parce que su ma waxee loolu. da ngay gis benn xale bu jigéen rek bokk ci benn série pour dina pas faire promotion ci yenn série mhm. mais série télévisée yi ñun ñëpp xam nañ ko. Mhm. dafay nekk def benn scénario ñaari scénario loolu laa demee nga seen ko muy animé ay débat yoo xamante ne tegul fenn maanaam débat yoo xamante ne. askan bi yëpp koy suivre. te du te du diplôme. Mhm. du xarañte du compétence du performance moo ko fa tax a topp

yu nit ñi di suivre mais dañ naan peut-être euh, ñun daam lu ñuy. moo waral nag dañuy yoroon njukkal fii ba mouvement bi demee ba ci kanam. waaw incha allah point vous avez parlé des détournements de vingt neuf milliards francs CFA du Prodac. waaw mais détournement boobu moom yéen yéen a ñu ko gën a xam. Mhm. yéen journalistes yi. Mhm. parce que yéen a ñu jox information bi sax d'ailleurs. Mhm. rapport au euh, OFNAC. Mm-hmm. Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Mon épinglé qui nous a demandé fi ancien ministre de la jeunesse. ex ministre du tourisme. mais mm-hmm. actuel conseiller au palais de la république Mouy Mambéignan, IGF IGF du moins IGF inspection générale des finances. Mm-hmm. Mon rapport moo génne rapport épinglé leen. yemul foofu nous sommes sur les deux premiers euh, coordonnateurs euh, PRODAC. muy euh, Jean Pierre Senghor ak Mamina Daffé ñoom ñëpp ñu am ay nit yoo xamante ne ay corps de contrôle état moo leen épinglé mm-hmm. te depuis loolu gisuñu dégg ñu si amul un franc boo xamante ne ñu ngi koy justifié élection yi ñu weesu ma may ñaar doxantu na Yoff yor xaamam bu tooy xep otom bu tooy xep population bi gën a topp ko te justice deful liggéeyam procureur lu muy xaar ci bi wala day xaar ñun ñu ñëw poño ko ne ko da def li par force te ci lañ Mm. muy affaire Prodac bi. vingt neuf milliards ñaata problème détournement de trente milliards. Mm-hmm. je pense à Bambilor Bambilor moom soriwuñu suñu na suñu koñ la. Bambilor loolu soo leen soo ci bëggoon am leen leer jël leen seen micro ñen dem Bambilor ngeen laaj population bi nekk Bambilor. Mm. li corps de contrôle état bi la lu ñu inventé. lu ñu ne la jox la te lu fi yàgg la soo xoolee rapport IG e, inspection générale tout à fait depuis 2014. Mm-hmm. mu ne état du Sénégal privé nañ ko ci lu toll ci trente milliards cinq cent trente trois millions ci wàllum fiscalité lu ñu waroon jox lu ñu waroon dugal ci keesu état bi waroon dem ñu fay ko impôt. te mu ngi tëkk li nga xamante ne moom yoo nga xamante ne waa Dieyni Guèye la Gorom 2. Gorom 2 dafa enclavé wu tellement que mm-hmm. Dieyni surtout aussi. pour accéder rek loolu war naa mën a résoudre seen problème sanitaire ak route yooyu noonu accessibilité bi te ñenn defuñu ko ñu dul ay personnes particulières que ça soit des personnes physiques wala des personnes morales ñoo détourné li nga xamante ne mënoon na faj ay jafe-jafe yu bëri ci askan wi te dinañ ci ñëw après ci suñu deuxième partie bi euh, ñu ñëw daal di koy jël dugal ko seen i poste te kenn du ci wax. troisième point détournement de 500 millions à la société Dakar Dem Dikk. waaw lii lii benn information la bu ñu jëlee ci ci ñu mel ni yéen def liggéey bu xarañ ci wàllu bi parce que yéen soo leen fi nekkul woon xaw ma ñoom nan ñuy def ba jot ci yenn kii parce que man mii di wax ak yow mm-hmm. damay sol sama mm-hmm. euh, ay def liggéey bu am solo ba tax ñuy jot ci dossiers yi muy détournement de cinq cent millions ci ñuy wax Dakar Dem Dikk kuñ ciy topp tey mooy l'actuel ministre de la formation professionnelle et de l'artisanat muy Dame Diop mm-hmm. nga xamante ne syndicat yi nekk yi ëmb kuréelu kuréelu liggéeyukaay bi ñoo koy topp ci 500 millions yu ma waroon versé ci benn ci benn société organisation boo xamante ne mooy seetlu lépp lu luy dem ci seen wàllu kaaraange santé mujj ko faa versé loo waroon versé versé woo ko ñu ngi koy tuddee lu détournement. Hmm. waaw waaw. ba parler je pense détournement 14 94 milliards luubal bokk na détournement mooy luubal. Hmm. tolloo 94 milliards su suñuy koppar. Hmm. waaw 94 milliards yi nag je pense que sénégalais yëpp xam nañ.

ñu jël bëgg a jël dossier bi politiser ko te ñun population bi rawatina jeunesse bi duñ ko. li ma jaaxal ñu def ndóomal yooyu yëpp dañ leen def ay poste yoo xamante ne day mel ni genre intouchable la ba. bëggoon bëgg naa ci ñëw mais après suñu paree ci détournement yi dinañ ci ñëw. d'accord mais 94 milliards yi lu ñuy wax mooy keroog dégg naa procureur ne comme de Sonko dafa jël 8 mois pour traiter dossier bi. Hmm. man tamit damay jël sama temps quelle irresponsabilité en tant que procureur de la République. nga xamante ne intérêt république bi nga war a défendre. Mhm. dossier bu toll nii ñu jébal la ko depuis deux ans ngay toog naan damay jël sama temps alors que nit ñee ngi dee ci géej gi jeunesse bi. Ah. ci immigration clandestine bi. am na ay jeunes yu gedd amphithéâtral yi. soo duggee tey en euh, université Cheikh Anta Diop de Dakar rawatina fu ma nekk muy euh, euh, faculté de droit sur 2000 étudiants qui arrivent 4000 parce que ñaari enfilaa moo fa am te 2000 la. 4000 étudiants y' a aussi les détournements de 108 milliards dañuy jàll boobu def. bëri avec Siré Dia détournement de 60 millions au palais de la République là c'est grave Seydou Gueye qui xam nga lii musiba la musiba la ci réew un porte-parole de la république. ba pare détournement bi am ci palais de la république ba pare ñoom ñu bëgg kenn du ci wax foog na sénégalais dañoo dof ba kenn du ci wax ñun nag ñooy ñooy wax sénégalais yi lu fi xew ci réew mi parce que bëri na ñoo xamante ne tey à travers votre couverture médiatique ak émission bi ngeen def dinañ comprendre lu ci bëri ñu ci bëri woon lu fi xew 60 millions. nga détourné ko ci palais de la république ci benn marché boo xamante ne 23 milliards la waroon euh, coûter état du Sénégal nga surfacturé ko ba 60 millions. jël vingt lu ci def yëpp dugal sa poche te lu gën loolu moom te lu gën a pire mooy ki nga xamante ne mooy an euh, ki gañe marché bi ñu waroon koo jox vingt trois milliards dix milliards lañ ko jox xaw ma treize milliards maanaam yow soo surfacturé sax nga delloo ki nga xamante ne moo la liggéeyal mais moom ki ko liggéeyal sax daf ko daf ko détourné moom tamit euh, li nga xamante ne moom lañ ko waroon jox. mu nekk ay on parle du huitième point moom seen biir dëkk la. waaw loolu moom suñu ñun waa ñun étudiants yi. waaw mu nekk lu doy doy waar. te man problème la bëri bagage. te ñun étudiants yi gàcc lay doon ci ñun gàcce la war a doon. Mhm. ñuy wër ñu ñuy dégg ci bourse. Mhm. ñuy xeex. te dinañ ci ñëw après suñu duggee ci problème yi étudiants yi sonn nañu lool étudiants yi sonn nañu ba pare mais lu may condamné étudiants yi leen kese la mooy le fait que waa ji détourné suñu cinq cent millions mm-hmm. te rapport wax Cheikh Omar Anne Cheikh Omar office national de lutte contre la fraude corruption mm-hmm. épinglé ko mm-hmm. te boobu léegi déggoo étudiant bu taxaw fenn wax ko parce que cinq cent millions yi ñun ñoo ko moom mais pourquoi amical yi nga xamante ñoo nekk ci université bi defuñu ay collectif manam génn ci mel ni def waaw revendiquer suñu droit parce que li ñoo ko moom D'accord, on va parler aussi de l'ouvre bi nga xam ne 9,7 milliards la. Hmm. pour Naby Olinda IGE IGE moo koy Samuel Sarr. mais réew mi doy na waar. Samuel maanaam réew mi soo nekkee ci mouvement tant que yaa ngi ànd ak gouvernement bi soo détourné budget national bu Sénégal kenn du la topp ci dara. te loolu danger la mais loolu danger la ci réew mi. Samuel Sarr depuis 2008 ñu épinglé ko ci benn rapport 9 milliards 700 millions lan la mën a fekk ci réew mi tey. bëri na mais dafa bu nguur gouvernement bu mu nekkoon bu mu daanoo dafa rallié wu ci mouvance présidentielle bi moo tax il est devenu un intouchable.

moom ne woon na déposé na lu ëpp trente mhm. dossiers ci table procureur te trente dossiers yëpp ñuy xaar yi réglé wu ñu jëlaat yeneen dossiers yi ñeneen ñi nañ fas nañ nañ nañ préparé seen bopp xam naa ne nag dinañ dem euh, part un peu partout o Sénégal dem ci seen teg seen i marabu

dañuy toog duñ def cours j'ai une sœur qui est là-bas mënuñoo sax def cours papa problème paiement beeg yooyu noonu <laughs> affaire building administrative loolu moom problème Macky Sall la boobu tey 17 milliards moom rek moo ko war mën a gérer mhm. question abri provisoire ba tey Sénégal fi ñu toll vingt et unième siècle ñu ngi ci abri ah provisoire bëri nañ bëri nañ bëri nañ partout là même au cœur de Dakar là ici à Thiam Colobane moo gën a jege waaw kon jeex na euh, lutte contre la corruption et le détournement des denrées publiques mhm.

6 6272 milliards 693 millions ëpp na mhm. régler sénégalais Je jëlal loolu le budget 2019 4 000 milliards jëlal na 10 10272 milliards 693 millions Sénégal en 2019 su un budget bu 10 000 milliards tey jafe dépassé mhm. jeunesse bi dañoo amatuñu espoir mais organisation yi ak débat yi ñuy organiser nan dañuy lutter contre l'immigration clandestine ba ci organiser un congrès international pour lutter ce ce ce fléau il faut d'abord lutter contre ces détournements scandaleux de deniers publics parce que li mo koy waral imaginons man ma nekk soutien de famille mm-hmm. dem un sama parents lu ñu daj ci sama jang fay je bama ma dem ba université nekk master génn mënuma am xey mënuma am sax stage mais toog di xool samay sama yaay ak sama papa ñuy souffrir wala ñuy añee loo xamante ni ñoom seen jom nañ ko añee mais je préfère jël gaal gi. dem dugg ci géej gi. te ñoom ñoo ko waral. Mhm. démarche yi nag du lenn lu dul ñun dañoo com dañoo teel a comprendre luy saafara problème sénégalais. Mhm. xam nga la moo koy saafara bu ñu bañ a naxante sénégalais yi seen problème keneen mënu ko saafara ku dul ñoom seen bopp. Mhm. keneen ku taxaw ne moom mun naa saafara problème sénégalais yi demal nga jël président bu gën a xarañ ci àdduna soo ko tegoon fii. Les Sénégalais changent changé comportement et la mentalité n'est les gardes fous mm-hmm. parce que le pouvoir rend fou le pouvoir absolument absolument fou mm-hmm. donc il nous faut des gardes fous Nous Nous Les Sénégalais nous le 16 le samedi 16 novembre à la place de la nation à la place de l'obélisque parce que nous avons fa marche parce que les politiciens ne pas. mobilisation su fekkee ci intérêt la mais lu mu gën a ragal mooy mobilisation su fekkee dañ koy critiquer wala ñu koy joxañ baaraamu tuuma na Sénégalais yi comprendre message boobu ñi nga xamante ne ñoo ñoo nekk tey ci ñooy orienté ci privé bi mais étudiant yooyu kan moo leen mën a xeexal seen problème ku lu ñëw quarante cinq mille sept mille étudiants mais ñoom nañ ñu fekkee ci ci combat boobu ñi nga xamante ne ñooy les anciens détenus ak les parents des détenus nañ ñu ñëw wuy ci combat boobu étudiants yi nekk université nga xamante ne tey da ngay jàng ba pare

membre mm-hmm. du fi dina parce que ñun suñu combat bi dinañ poursuivre jusqu'au bout. inshallah te dinañ dem jël suñu document bi ne lii moo ci réew mi am ngeen baat ci réew dem général des tidiane des peut-être modeste personne dina parce que ñu milliards parce que ñu ay milliards ñu ngi leen di jox gis ku ñu ci mi nous avons ni des milliards ça c'est Nous mais nous peut-être détourné milliards pour lu cause noble la dinañ pour mais nous poursuivre parce que si nous place de l'Obélisque nous nañ devant le palais de la République parce que nous nañ joxe ultimatum C'est ce que nous nous en exclusivité mm-hmm. Nous bëgg nañ ultimatum le 16 le président de la République le gouvernement à ce que Jafé jafe askan bi d'abord abord ñu indi ci ay gindi ñi nga xamante ñoy ñooy les acteurs de la justice dossier yi ñu wax ni ñu taxaw ci nu mu gëna a gaaw te dinañ leen jox délai te dinañ ko annoncer le 16 septembre inshallah allah. délai boobu 16 novembre du mois mhm. te délai bobu bés bu jotté te gisunu manam do suñu ñaxtu yi am ay avancement devant buntu palais ni ñi dem. revendiquer foofu woo la presse nationale et internationale dénoncer li nga xamante ne mooy les politiques malsaines muy la politique du ventre am ay intouchables yoo xamante ni ñu ngi sàcc di luubal alalu askan bi te tegul fenn. Abdoulaye Touré ñu ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi leen di remercier di remercier également waa Sénégal notre priorité ci liggéey bu am solo lii du liggéeyu benn nit liggéeyu groupe la.

Euh, frappe dégage pour ñoom tamit ñu ñëw euh, jàpp ci combat bi parce que nekk combat boo xamante ne ñun kese nañ ko gagné combat la boo xamante ne mënuñu koo gagné tant que fédéré wu incha allah. ok kon ñu ngi di jaajëfal seen internet si seen di leen wax ne nii rek lañ fi nekkee ah fu information nekk ñu jëli ko lu lëndëm ci askan bi ñu leeral ko si ça se passe ici sur la Dentale TV et nulle part ailleurs jaajëf.